des na lu mu gën gaa yàgg ñetti weer. Mm-hmm. ay sotum moo tax ñu bëgg ci taxaw ginnaaw fitna gi amoon kon bëgg dem ci Ziguinchor. lu mm-hmm. Ousmane Sonko doon dem ci waa waa mu ne waa Doudou Ka ñoom Sonko ñoom ñaari ñëpp nag di ay responsable dégg nañ kàdd yi nga xamante ni. yëpp yëkkati nañ ko gën ci ñëwaat mais li gën a am solo mooy fi ñu yàgg wax Sénégal ne saa yu ñu jëmalee élection wala ñu nekk ca. fitna am lan nga jàpp ni kon moom mooy cause bi ak euh, nu ko war a mën a euh, rek euh, sant ci laaj bi di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu fu ñu mën a nekk defe naa li xew Ziguinchor ça nous a rappelé à de très mauvais souvenirs te foogoon nañu ne Sénégal fu ñu toll quand ci maturité politique ak fi réew mu toll àdduna toll fa ci ay jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg yàlla yu doy waar la saa boo ubbee euh, journal nga dégg ci yu metti yu fort defe naa ne euh, spectacle yu mel noonu euh, duñ ne jóge na fi waaye dina bëgg a jaam mars 2021 bi rek kenn ku ne fàttewoo la fa xew mu am ba tey lu toll lu ëpp ci fukki bakkan ñu ñu rot ñu diggoon ñu euh, euh, leeral enquête ba tey ba sànq fourage daal dafa dégg xam nga kon yu mel nii prémisse yi ba amee dafa laaj non seulement taxaw seetlu mais ay ndogal ay ak mesure parce que euh, li nga wax ni chef dëgg la Sénégal gii ñu ni mel yàgg na am muy lu metti loo xam ne en réalité te foofu man laa bëgg bala maa euh, dugg ci problème bi mooy waxtaan ak ñun ñii di yaayu xale yi ñun ñii di jabaru mag ñu góor ñoo xale góor yooyu euh, di ànd topp politiciens yi ak ñun ñii di seen jigéen mm-hmm. moo xam ñu seen mag wala seen rakk parce que euh, xam nga nekk Chera Kano dañ ko doon baat la boo xam ne dañ ko doon dégg bu yàgg Chera Kano mm-hmm. yàgg nañ ko dégg kenn ñaanul yàlla faatu jur doom wala am borom kër wala am mag wala rak boo xam ne cher àkanoo la de quelqu'un parce que euh, euh, politique dafa jarul yenn yi politique jarul kenn warul jar kenn sa bakkan nga ñàkk ko nga rot sa bakkan rot ci euh, bëgg naa diw bëgg naa x y dama koy aar dégg nga bala ngaa àgg si moom jot ma kooku ak waye di weesu ko te homme politique yi ak boor bu ñu mën a nekk seen responsabilité mm-hmm. dafa engagé parce que ay doomu jàmbur ñoo leen gëm gëm boo xam ne neexut dindi seen xel moo xam lu tax ku ne am nga ku la bëgg ak bëgg ak koo saf mais li nga xam ne moo moo moo moo dul yoon mooy nga topp nit nit ki ngay topp muy homme politique ba am njabootam am mbokkam am fayaram am léppam am doomam am lépp mosoo dégg ci gaañu gaañu yi xew-xew yi mosoo dégg ñu ne frère homme politique ba ca leader ba frère wala rakkam wala wala doomam wala nangamam loru na ci moo xam loru ba ban fa xeetu lor la ay doomu jàmbur ñoo ci loru kon loolu dafa laaj ñun ñii jigéen ñi ñu tey suñuy doom tey suñuy ndox bu ñu ñëwee nag ci euh, euh, yi xew li may njëkk a incriminé li may njëkk a mooy le fait que émeute euh, mars 2021 ba tey ñu nekk amul suite xam nga bu fekkonte ne am na suite. Fatou pour nobel rey sa maam boo gisee lu ñuul da daw. bu fekkonte ne Samba booyi. ya faat bakkanu jàmbur yi keroog. ma ca mars teg na leen daan yu war enquête nañu enquête ba léegi am ah, xam nga déggoo fi enquête. dañu annoncé amut. bu fekkonte ne ah, def na un pour un pays sérieux un état mm-hmm. sérieux un état droit defe naa lu mel noonu ay bakkan yu. ça non. impunité boobu faati lépp lu do lu ñu lor ñun sénégalais looloo ñu xoolal ña ca ñàkk seen bakkan xoolal ña ci ñàkk seen alal xoolal des gens comme moi nga xam ne dañoo jël ay gàddu ko deneen fay pendant nangami nangami yëf kon loolu yëpp euh, jaara par perte et profit moo waral li nga xew gis tey te loolu dafa laaj taxaw parce que ak àgguñu fenn yaa ngi koy wax léegi dara xewagul mm-hmm. ñii war a xew loolu il est temps de parce que euh, li xew lan la li xew mooy aujourd'hui euh, lii démb euh, mooy mooy mooy annonce bi mais la ko jiitu faatu faat yi am na beneen forme de violence bi ngeen fàtte ñu nekk ci ci terrain bi actuellement xoolal tey ji bu demoon ministère yeeg direction générale yi kenn nekkatu fa DG yëpp mais loolu de violence la. <laughs> DG yëpp daw nañu. nga nekk terrain nga soxla kër mënoo koo am nga soxla signature mënoo koo am. ña campagne. ña ngay campagne xam nga xam nga Sénégal ce pays là wax dëgg fa yàlla ñun ndëpp sa arrangé wu. na ñoo xam ña Dubaay ñëpp a. xoolal non Dubaay maa ngi cee ñëw ndax man Dubaay Dubaay maa ngi ciy ñëw chérif sax euh, réew la boo xam ne nii dëkk si Sénégal la moo juutu bopp moo nekk ci suuf tànk yi nekk ci kaw ñu naan nii. Mhm. parce que. Euh, euh, da ngay euh, lu ñu naan moralisation de la vie publique dafa dafa dafa gën a xóot parce que ñiitu réew ma ca boppam. ñiitu xam nga kër day am kilifa. mais bu dee kilifa ba nii la def takk ay noir fi mais ne man. boole ci gumba tox mu ci la ko neex la ko arrangé ku ne def la la saf xam nga gis naa sànq kenn ku naan ku tiitale si benn journal bi fa ba may ñëw. ñu naan euh, dafa naan observateur la. Mm-hmm. mu naan waa manque d'autorité du manque d'autorité de daf ko daf ko neex. Mm, mm-hmm. daf ko neex. li mm-hmm. xew daf ka neex parce que. violence ak violence ñu ànd xam nga yow Doudou Kane. ñu dénk AIBD tajul fenn fonds bi rek barki demoo ñu dafa fan fanweeri atam juróom-benn moom Doudou Kane kenn xamu ko man nii dafa na euh, kanam moom su ma ko rob ci bëccëg doo ma ko xam doo ko xàmmee tojul fenn moom Doudou Kane tajul fenn xarul fenn. Macky Sall ñu mel noonu la jël imposé ñu ko. Doudou Ka mu ngi nii yaa xamoo ko. na mi mais mais ki kan moo ko xam ne ñu wax dëgg xam nga xam nga des choses comme ça Sénégal la xew. Mm. kii xëy na waa fa muy fa muy tiitaroo di bu xëy na waa bu kot koñ ba koñ ba mu rek périmètre ba. xëy na mën nañu ko xàmmee. mais je t'assure kii boobu Doudou Doudou Ka mii dong tullum mu génn dox deux pas hors de koy xàmmee kenn xamu ko waxuma laa nag Sénégal national kenn xamu ko. Mm-hmm. nekkee FONGIP def na fanweeri atum juróom-benn lan la fi def fonds jot def fi dara zéro. Mhm. yaa ngi dégg nag ba tey sax ñu naan am na ay mbóot yam fa baax. Mhm. léegi ñu ñu ne ñu ne den na waay kii mhm. élection présidentielle lan la fa def dara zéro. dégg naa si bureau de vote parce que il a fallu que ma def ay recherche ci moom parce que man xam nga je le connais pas. nga ay recherche xool na même bureau de vote il paraît que sax bureau moom dañ dafa dóor Macky Sall ko mu sanctionné sanctionné mu jël ko yëkkati AIBD jox fa ñu ngi xam de temps en temps ñu romb fa am dara xam nga kon li may wax yëpp. ak ministre yëpp daw nañu nekk ci campagne moom tey bii bu fekkoonte ne mi ngi def liggéeyam la ban jot la am bu dem ba dem tambaambaalu fee euh, euh, bu kot Ziguinchor nag naan waaw euh, c'est-à-dire. c'est vrai surtout ak Covid bi ñuy wax. mais dama ne transport aérien transport aérien xoolal maa ngi dégg maa ngi dégg moom nii moo ñu fitna parce que kenn xamu ko waaye ñu ngi koy déggal ay gis ñu ngi tànnaa sax kii ministre am ba Alioune Sarr. Mm. bëgg démb gis naa bëgg démb dégg naa Aliou Sarr moom def euh, def xaw ma conférence xaw ma lan euh, si asimi bi mu ni bee sama kii jox laa gis mu posté ko mm-hmm. mu di wax ne euh, léegi Sénégal ku ku dugati xaw ma lan boo amee boo vacciné woo dañu laaj ay test nangam nangam waaw léegi xam nga ko ministre moo ko wax mm-hmm. kii DG ba anamu moom boobu xam naa dégg nañ ne Sonko ma nga fa ma nga def mu ne xaar ma dafa buzz dégg naa xam naa ne Sonko day buzz mais moom mais maanaam malheureusement buzz baa yàqu ndax Sonko la joxaat buzz yàqal na ko Sonko léegi Fatim imagine toi yow quelqu'un comme sax koo na ko ne nii dadaa nii dayee ba ba ba xeex jotee émeute marché dafa daw moom bokk na ci responsable yi laal yi moom dudu kam yi di ngan ngan di tiitaru dafa laal yi daw waxeet doole ji muy jaay waroon foofu la ko waroon wane dafa daw waxeet la daw mhm. léegi bàyyi ba nii mu ni xaaral kee dem na Sonko dem na c'est xaaral ma woon Macky Sall parce que lépp actuellement le Sénégal est euh, est en campagne électorale euh, kenn ku ne si ñoom moo mën a xëccee ba def def buzz rek. ba ñu investir la nga def ko. léegi ma nga fa di mattanteeg di gàjjante wane léegi qu'est-ce que euh, xam nga lan moo ma choqué li ma choqué mooy moom li Doudou Ka la mu wax te dafa xam ma choqué Sénégalais yëpp ndax gis naa gars yi yëpp di ko di ko di ko di ko ŋaañ. Fatou la mu wax ci observateur. Mm-hmm. xam nga bu ñu nekkoon li ma wax impunité. xam nga bu ñu nekkoon ci dëkk Sénégal bu loolu dëkku yoon la bu doon Sénégal dëkku yoon la dëggantaan. Macky Sall euh, nekk un grand démocrate un grand républicain bëgg réew mi. bëgg bu fi jegee am fi way wu rafet. ñu jàppale si sàmm jikko yi sàmm jikko yi mi ñu commencé ci ñu laar yi nga xam ñu dara ñoom ay dóorukaay yi nga xam tajuñu fenn ñu def lu rëy loo osé taxaw dafa c'est-à-dire assumé moom bu ñu doon wax naan moom moom aveu buñu nee euh, l'aveu et la mère des preuves et la mère des preuves moom joxe na ko. mais loolu dafa assuré dafa am lu ko jiitu parce que est ce que kon bu fekkee ne yow da boo bokkee ci nguur gi loolu neex def parce que on se rappelle aussi affaire lu nervi yi. mais la ñoom wër ñu gis leen identifier mais. ba léegi yaa ngi mais Chérif mooy li ma la wax xam nga wax naa ko fii bëkki démb mercredi dernier fii laa toog ma ne tey wéyu bu mag bu bëgg a siiw rek bu euh, bëgg a sauver dawal APR ba pare ñoom amuñu sax suñu koom saa yi ñuy xalaat ñu ne Macky Sall bu ñu bëri si ñoom dootuñu ñemeti xool sénégalais yi les dans les parce que xam nga xam nga a te Macky Sall si boppam il se rend pas compte que ces gens là dañ koy yàqal il se rend pas que sénégalais yi bu ñu xam daal loolu dëkk wàññil la mm-hmm. parce que yow noo mën a taxawee xam nga xool bu war a soogi baa ngi noonu mais war a soogi dafa ñëw doo lekku ci bu bu bu marché bi mm-hmm. ayatu euh, impunité boobu man bëgg naa ñu taxaw ci parce que moom mooy indi loi du talion waaw Ousmane Sonko yaa ngi koy dégg ci kàddoom xam nga bu fekkee ni nee nañu euh, dañ laa tooñ ba ñëpp teg ci seen i gët ba noppi justice amul loolu mooy waral nit yi di fayul seen bopp ba muy am ay dérapage mais Fatou fayu sa bopp boobu Sénégal fa léegi Sénégal léegi jungle la mhm. jungle la parce que ñu mel nii la ba pare xam nga li garaaw léegi li gën a choquant mooy le gars mu mu am humilier nopp mais xoola arrogance bi mu waxee moom dudukat bi nga xam tekkilul dara xoolal arrogance boo taxaw naan carrément ba pare jàpp ñu taxaw naan waaw dégg nga moom Sonko xam na ne man euh, bu ko laa def fi sama kër la mu ñëw foofu dama provoqué xaw ma lan xale yi bu ñu fa nekk mais donc moo ñëw sama territoire moo ñëw sama nang mais xam nga loolu fu day na Sénégal quelqu'un ose di wax loolu ci biir réew mm-hmm. yow nga def dara xoolal délimitation ba pare xoolal ñaari euh, ñi ñi ñu wane sànq gis nga image yi ñaar ni ñu wane euh, deret seen deret yi deret yi Euh, muur leen waa ñooñu de kan ma leen faj ñooñu kon ki leen def loolu kon euh, garaawul parce que fee la bokk dafa bokk ci fu baax bi léegi moom mu taxaw assumer carrément ne euh, moom mooy ko parce que en fait c'est ce qu'il a voulu dire que c'est lui qui a commandité ça mhm. léegi ñu bàyyi ko comme ça choqué kenn choqué wul taxul police dégg nga léegi Sonko di ko wax ba ñu wooyee waa police police dañu ñëw indi benn pick ak ñaar bi la ñu léegi ko foofu bu fa jëyee amoon la léegi li nga wax ne fàttiku te lañ dellu si waat est-ce que ñun dañoo mérité ñun am président mel ne Macky Sall nga xam day toog di seetaan euh, bu fekkente ne euh, wëyu yi ak band yi APR lañu nekk bu ñu dóoree Chérif Dia ñu tendee fal yoot bàyyi mu sedd mais ñun kon loolu mooy kon nekk mooy loi du talion kon ku la dóor nga fay mais ñoom sax loolu laa def dégg naa gis naa seen kooku kii Souley mm-hmm. mu naan Souley Diop beneen Souley gis naa ko mu def benn waaw euh, euh, xaw ma nu ko waxee naan j'ai bien aimé euh, sa prose nee na ñoom ñëpp bu ñu nangoo nekk ay xar parce que bu ñu nekkee ay xar ñoom ñëpp la ñuy àndoon la ñu xam nga ñu waxee tontu bi. tontu mais mais est que loolu aussi du loi du boobu du contraire ak li wax parce que nee ci programme wala ku bëgg a jiite ci xam-xam nga koy teg ci ay idée ci. mais waroon na xam nga Chérif yàlla di et le non di waroon na. Mm-hmm. waaye tamit mais Chérif Dia man mii nga xam ne jigéen laa duma dara. mais man danaa toog seetaan kenn ñoom sama kër di ko di ko taxal xanaa man man man ku doo da ngay fekk ma nalaw mais ku ne ku ne parce que tamit légitime défense am na sauver sa bakkan dama ak sa yëf am na bu fekkee ne dañ nekk dans un boo xamante ne nii mais euh, ñaari Sénégal moo fi am Sénégal de Macky Sall et les autres les autres dans les autres yaa nu léegi nit osé Euh, yàq xool oto jàmbur bi ñu yàq. kayaase kayaase ko nekk si si vite fait xoola ñaari ñooñu xam seen deux tour nañ ko ci vite fait waa ji ba pare aussi dem gis nga si guddi gi xaaju guddi dañu ma yónnee benn vidéo boo xam ne xaw ma dëggal ou pas gis ko moom Doudou Ka mi nga xam du dara mu mu xoolal mu muy jubale te taxawaal di kontaan mel ni que mel ni que def lu de li xew Ziguinchor euh, xam nga ni suñu waxee ni. violence bi am ci seen politique bi mënul bett kenn parce que déjà li ñuy dund nii réseaux sociaux yi dafa flagrant nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy engagé ay répondeur automatique uniquement pour saaga kenn di xeex kenn pour yàq nit loolu déjà c'est dans le monde virtuel mais forcément heure confrontation su jotee ci mais mais xam nga xam nga mooy sànq sànq Cheikh tu as ne violence bari na lii lii nii lii lii lii nii vigilance multiforme la gis nga lii lu ndaw la mm. parce que xam nga ñi war a wax bu ñu waxulee mais pire mooy am pire parce que xam nga tax pire da am mm-hmm. mooy aujourd'hui force est de reconnaître que local yi xam foofu itam si yàgg nañu ko wax fii ni primaire ci présidentielle mm-hmm. ñu bëri dañuy jouer seen avenir politique mm-hmm. mais ni ñu koy jouer moo baax xam nga fekkoon ne Macky euh, bëgg na équité bëgg na euh, wan joxe signal euh, signal vraiment vert fooy wax ne moom dëgg-dëgg Sénégal ak Sénégalais yi ñoo ko ñor. mais tous ces DG et yi nga xamante ni ñoom ña ngay campagne mais moom mu mu benn benn benn xam ne dañ leen en te mets en disponibilité nga dem loolu mais la yoon. mais fii nag c'est le contraire dañ lay menacer ne la boo. boo ba ci laa doon jëm bi nekk une question aussi vitale. Mm. aussi euh, euh, euh, aussi révoltante presque. mooy ça ça c' est ou vaincre ou périr. léegi ñoom ñëpp nag ils sont prêts actuellement ni mortal combat bi soo ko doon wootee. moo ci nekk fi mu ne. pour ne pas perdre leur privilège pour ne pas pas perdre leur privilège ils sont prêts à tout xool actuellement. ku nekkul fii ci bu gàtt bi mooy nekk fi Sénégal di di tambale ci ci ci ci euh, terrain ba yaa ngi dépôt euh, euh, fële Dubaay di taxawaa tambaambaalu ndax Macky Sall fi mu dool fu Macky Sall dem ñoom ñu ñu ñu rée dem fa Macky Sall tamit tambaambaalum lan la dañoo ci dëgg tambaambaalu Macky Sall lan la depuis ba mu amee kii avion bi foofu loolu benn parenthèse ba ma bërëxal rek ndax dafa dafa métti mais depuis ba mu amee son son bijou jouet bu bees bi hélicoptère bi mais fu ñu fu fu fu fu euh, nu ñu ko waxatee ñaari ginnaaw bu ñu xewlee ci biti sax mu daw dem yóbbaale mbaboor geeg gàngoor geeg wuyu yeeg mbànd yeeg ñëpp yëpp yóbbaale xoolal ma du bàyyi rek du tey tey ma journée du Sénégal 13. kañ la dem DGM kañ la dem. Mm-hmm. dem gis naa mu mu def photo ànd ak euh, Malick Diop ak Kële. Euh, nu mu tudd benn xale bu góor bi kii Fofana. ñu ne waaw c'est encore. c' est encore xaw ma ah, euh, gis nga Fatick. Mhm. foofu laa ko jëlee sujet parce que bëgg naa ñu dem si suba li xew suba ci assemblée nationale xam nga Fatick. Mhm. gis nga euh, li ma wax tout le temps Macky Sall il va sortir en tout cas il risque fort de sortir par la petite parce que investiture yi mu ta mu taxaw naan nii nii nii noo xam bu a leeral carte bi. ne yow diw yow fii lañ la investir diw fee nga nekk. entendant nag loolu kàddu gi leer. yow mais sañ sax wax fi ne nii. mais sañu wax ba pare xoolal ñu garaaw am dafa am ñu sañu wax ñu sañ a wax. xoolal parce que ñoom ñëpp investi nañ seen bopp ah. Mhm. kenn ku ne fay nga ay nit ñu taxaw ñaari deux pali trois ñu taxaw ne yow la ñu investi ak yaa ñu doy. yaa yaa ñu doy boobu li ñu xamul mooy li ñu xamul mooy euh, euh, effectivement effectivement le carré politique fii parce que mais Euh, Sénégal yi nga xam ne ñoo leen jël parce que Sénégal itam ñoo war a yeewu. te yeewu nañu. ndax homme politique boo xam ne Chérif doo ko gis doo ko seen tànk élection jot. doo ko gis doo ko seen tànk élection jot. élection bu jotee nag lu xew suñu toll temps yi ren moom. màggal gàmm. ñëpp lépp waaw joxe nañu ba lu ne lañ parce que élection yi décembre. bu bu yëfee jàllee ñu xaru. nga fal ay benn bi nga fal benn n'importe qui mu pare jàll. Macky Sall laay wax ne. moo ñu war a jàppale ba teel a libéré ñi nga xam ne ministre déjà yi nga xam ne liggéey euh, euh, dañ nekk candidat na leen euh, suspendre ñu génn dem ci terrain bi te nag violence bii li xew Ziguinchor procureur bi daf ci war a jóg autosaisiru ñu joxe ay alerte wane lu leer wane ne ku ku ku ku ku gaañ nit yoon dina dal sa kaw ku yàq yu fi jàmbur yoon dina dal sa kaw parce que effectivement te d'accord naa ci li Sonko wax parce que pour une fois je suis avec Sonko ndax quand il dit que euh, beneen yoon lii mbay na euh, euh, ndax xam nga kay de le petit là ba pare mu tiitoon naan waaw ah parce que et comme ni ma la waxee gis naa photom ñu teg photom teg photo Sonko mais xam nga si quand tu crois que c'est en étant violent que si ngay am buzz si ngay am sympathie publique c'est c'est tout à pour la pour la première fois de sa vie am na def na une journaux yëpp mais malheureusement de la manière la plus triste Sénégal yëpp àndandoo jéppi ko parce que dañu xam ne kii d'abord toyoo fenn tekki woo dara démb a barki démb nga ñëw di di damoo violence kooku ce sont les pratiques à bannir mhm. ba ca des nag euh, Chérif Dia mooy euh, suba laa bu ko wax euh, suba mooy mooy lever nga ne ñaata la am une minute une minute moom a dese waaw jërëjëf parce <laughs> que soo waxee wax ba ba Euh, bu bu bu bu suba bi normalement ci la ñu war a session euh, kii bi. Euh, assemblée ci lay ubbi rek. waaw mais normalement demain ci la ñu war a yëkkati. non non non eggugoon ci parce que il faut que assemblée léegi léegi xëy na président dina. profité daal di wax député yi nga xamante ne jëlee nañ ko. ci ministre ba pare wax leen tamit ñu ñëw beneen jour boo xam ne ci la ñu ñëw voilà et cetera suba daal la ñu suba la ñu war a annoncé. ouverture procédure suba la assemblée tijji comme école. voilà <laughs> rentrée des classes <laughs> ci la ñu defal seen bureau et cetera. xam nga lu ma ci bëggoon profité wax. bëggoon a wax tuuti euh, ne euh, gis naa sax euh, démb ci waa kenn si ci ñaar ñooñu bi yaay moomu bu bëggoon a def interview. ay naataango set bi xam kooku xaw ma nag kan moo ko mujjee yedd ba mu na ko. xam nga loolu wax dëgg fa yàlla Sénégal léegi moo tax ma li man ne Sénégal dafa yàqu léegi se grave. yow nga def la bu ne weng ñu li ma tout le temps rek yow ñu bàyyil Macky Sall ba tey di protéger ay ay wuyu ak ay bandi kooku un mois ngi nii mu taxawaalu mu jël na sëriñ ñëw dafa il est à l'aise ba osé naan day ñëw en direct def émission xam nga kooku on a jamais vu quelque chose comme ça mm-hmm. ndax loolu vraiment mooy kokkali sénégalais yi

léegi non non léegi euh, chef Dia chef Dia sëñ bàyyi ma àggali Guy Marius euh, placé ma si dara non non la prison non non non Chérif non Chérif Chérif yow da nga bëggee ba euh, gundaan hôtel yi neex ak yu kër gu baax nangam Guy Marius Sagna moo bëgg prison Guy Marius moom moom moom moom moom ça c'est son trip c'est son délire il adore la prison il adore la la kenn mënu si dara donc bu génnee suba bëgg naa suba delluwaat kooku on est habitué mais ce que je veux mooy et ça c'est pour société civile bi la est-ce que tamit waruñu ko jaay comme on parle de démocratie ñu bàyyi ko mu def ay manifestation mais Fatou Guy Marius lan moo ko teree mu dem ci manifestation autorisée Fadi dañ ma wax kan ma mës a gis Fadi kan lañ ma wax. Fadi Fadi dama ne wuyu ma wuyu ma Fadi waaw waru fi am. mais malheureusement depuis moom yóbbu woon ko foofu ndax manifestation interdite dama ne dama ne c'est-à-dire dëggantaan dëggan dëggantaan Sénégal waruñu am waruñu toll di interdit ay manifestation mais comme foofu la Sénégal toll mais on s'adapte léegi pourquoi mais en plus lañ ko jàppee ni euh, Sonko loolu la wax ci conférence de presse bi. léegi mais xoolal bu la ma yàqalee ma bëgg a wax parce que man ma def ma dugg leen ba ngeen a yàq sama yëf bàyyi leen moo moo may moo may moom dugg prison moo ko euh, euh, xam nga chaque fois sama wax si jigéen am amul lu ma neex mais bii c'est c'est vraiment quelque chose boo xam c'est un du cœur euh, sama yaay accepté ça laay waxal j'étais choquée ndax boobu mi ko wax après sama jàngat bi passé j'étais très choquée comme beaucoup de gens euh, dégg sorti bi mu def ci affaire trafic de passeport diplomatique yi xam nga man bokk naa si ñoo xam ne je pense que fii la woon sa daaw la woon ci à pareille époque ma ñaawlu euh, Aïssata Tall Sall ak euh, daayoo ba mu toll fa mu jaar de de Abdou Diouf à ici ñun ñi dañ ko doon seetaan yi ci ñu tuddi ba ñu nekkee stagiaire dañ ko doon seetaan tribunal ay plaidoirie bi envolé rek benn tubaab bu mu dégg éloquente euh, raffiné classe ak yooyu kon euh, ba mu demee transhumé dem ci Macky Sall man bokk naa ci am déception Macky Sall doo ko gis benn tiroir congélateur envoyé spécial non attends envoyé spécial ma jooy ko ba mu génn ñu ñu jox ko lu rëy muy ministre des affaires étrangères nekk la première femme boo xam ne moo koy bopp poste man xam nga lu ma doon xaar ci moom mm-hmm. mooy dama doon xaar ci moom mu toj fa jël ay responsabilités mu jël ay responsabilités xaaral xaaral chef de est-ce que chef de mën na ma bàyyi fàttali doon léegi mu toj fa def fa loo xam ne lu ne lu rëy loo xam ne nii bu subaa président bu ñëw l'histoire retiendra que Aïssata Tall Sall sous son magistère telle et telle autre chose ont été faites mm-hmm. euh, et aussi euh, beneen président bu ñëw mm-hmm. xam ne ñun jigéen ñi dara jombuñu bien que on est dans un pays boo xam ne foo xam ne jigéen day nekk président de la république waaye au moins yenn poste yu rëy la république comme poste fii au Sénégal mais euh, sama yaay bi mu ñëwee si ministère ba tey doorul fayiwul. mais non may ma may ma may ma Sénégal moo soxla may ma may ma xaaral xaaral xaaral Chérif ba mu damay def bitim réew la waaye avant mu yor poste ñu ko fi yor ñu ngi fi. Euh, li ma naqari moo may yàq ba dooma tere ko ba daaneel naa ko ba ne saay léegi euh, ba ca des mooy euh, mu naqari ma tiktok bi boo foo foo bee tiktok seen ko fa mu takk am ku ku ko téyeel saag bi mu téye téléphone am nii def genre sañ sa ba jekk di ale doo ko tuur dafa xam nga xam nga loolu c'est réduire la femme. à sa xaaral loolu diplomatie wuyu ma ci mosu gis Amadou Ba muy taxawal nii wala man Kër Dia non non non Cheikh Dia bàyyi ba xam nga loolu. loolu c'est encore ñun femme nous réduire à notre plus simple expression c'est-à-dire nous réduire au maquillage. au parfum au truc te ñun dépassé nañu loolu ministre des affaires étrangères ëpp na loolu Aïssata Tall Sall euh, euh, euh, elle a échoué une mission boo xam ne. non qui était attends qui était à sa mesure xoolal ba ki démb yow li am lu rëy lii am. trafic de passeport diplomatique yow nga ñaan ko loola nga ne pat noonu pataaral xaru dugg ci suuf si waxoo bàyyi ba nga xam ne euh, dëmm yi sëy nañu nga doog a génn naan di invoqué benn di invoqué benn euh, kii nu mu di invoqué plutôt benn. Euh, séparation de pouvoir. xoolal ma xoolal ma kii est-ce a a bàyyi ruube. séparation de pouvoir mënu ko ko fa wax. non xam pourquoi séparation de pouvoir mënu ko fa wax. mooy Macky Sall dérogation la war a lay mais ayant droit tous les ayants droit kooku sa ça relève exclusivement de l'autorité mais rien ne dit que moom ci son sous son magistère la affaire bi amee scandale bi ah. waaw dama ne xoolal Chérif comme rien ne le dit moom euh, ça n'aurait pas dara dara excusé wu le fait que. qu'elle qu'elle se taise. Mm. donc Fadi fi may jeexale pour ne pas parce que bëgg naa sama grand <laughs> yaa ma yàq pour pour pour bañ sama pour sama sama grand mu wax mooy euh, damay ñaan euh, sama yaay ji Aïssata Tall Sall pour vraiment euh, li li ci des. na ko téye yaa may na poñe ministère bi mm. na bàyyi di daw ay responsabilité am teguñu ko fa pour muy mag yow du sañse mun kam ñëpp ku ne xam ne sañse kat la mais ce n'est pas le plus important li gën a important mooy quelle marque de son empreinte ce ministère là mais ce n'est pas en en étant sur ne nekk ci réseaux sociaux yi daf kaa neex ndax minu Sénégal yi moom minu Sénégal yi moom dong laa gis TikTok minu Sénégal yi def def yëpp waaw loolu daal laa bëggoon wax Fatou lu des nag man euh, xaru naa mos mos Fatou ma jeune jeune di rien du tout <laughs> euh, pare naa si wax ji donc vraiment dinaa <laughs> nga baal ma euh, vraiment sama xarit nga sama lépp nga yow nag man damay toog fii nekk sa avocat kii bu bu jàddee koñ ma dal ci kawam yow kenn du la laal waaw pare naa si dinaa wax dossier bi comme ça fossifié kii sama grand ma la non Aïssatou Aïssatou sama grand ma parce que da lay calmer de parce la fi wax yëpp. sama grand la la yow tey lépp waaw. tey lépp waaw kon yes. Aïssatou ay calmants aywa ñu dem léegi léegi ci invité bi.